auzu billahi min charri iblisi wa junuudihi laa xawla wala quwata illa billahi alali alazim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi bukratan wa asila mbokk yi ñuy déglu asalaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu seen mbokk Mouhamed Fata Sarr moo di nuyu Eh, di def benn leeral jëmee ko ci sunu rakk bu ñuy wax el sunu rakk la sunu mbokk senegale la ndax ñoo bokk réew mi mu jug nag dugal ci sunu tariixa lu ci bokkul di waxal Seex Ahmad Tijaan lu amul di waxal yenentu bi lu amul di waxal sunu borom mi nu bind lu amul ñu jug nag fas yéene jàmmaarloo ak moom ba ba muy dellu ginnaaw ñun nag duñu kuy tiit duñu kuy ragal duñu kuy dellu ginnaaw su fekkoon ne ñi ànd ak moom ak moom el ci boppam fi nu soqeekoo ci diini su xamoon Mama Lamine Sarr dañ ñu ko dékk ren di te diine ko waral moo ñu meññ du ñu daw du ñu daay du ñu ragal kon menaces yi ngeen di def yépp bu yeboo ngeen arrêté ko parce que dañuy dénoncer el ndax sàccukatu pas-pas la te nit nag bu jógee ngir sàcc pas-pas di ko jaaree ci ay ndaw ndaw yooyu danañ leen leeralal ne kii ngeen di topp lim leen di wax amul waxtaan bi nag dañ koy jaare ci li mu waxtaanoon ci sëriñ kër si ñu wan xale yi ne leen lim doon wax dara amu ci ñu déglu benn passage waxtaan bi nag du doon benn waxtaan dañ koy def épisode par épisode ba ñëpp xam ne lim doon wax ci sëriñ kër si amul suñu paree ñu door a dem ci yeneen mag yi mu doon waxtaanee ba tax xale yi dem fekki ko mu détourné leen ci boppam xale yooyu ku ci sa bopp di ubbeeku nga xam ne kii li taxoon ma seeti ko amul soo koy bàyyi nga bàyyi ko parce que booy topp da ngay topp waxkatu dëgg booy topp da ngay topp nitu yàlla te nitu yàlla du fen kon ñu déglu li mu waxoon ci Serigne Babacar Sy bi mu amee ñaari at. waaye gis nga Serigne Babacar Sy bi mu ganee àdduna bi mu juddoo ñu ni léegi mi ngi ci monde shahada bi mu amee ñaari at bi mu amee ñaari at laa wax ci monde shahada deux ans nga xam ne xale bu am deux ans fii da daanaka doo ko considéré gu moom ba mu amee deux ans la ko ma Cheikh Ahmad Tijaani jël si ca Tiwaawan yóbbu ko ba juróom-benneelu asamaan fi yonent bi toog soixante-dix mille cercle malaayika yi wër ko di si ko jawharatul kamal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ni kii ni ni yonent bi kii mooy Cheikh al moom laay def sama xarit gis nga waxu Cheikh boobu ni mu dëgëre moo tax foo ni xalifa ci réew mi la ñu Serigne Babacar léegi nga naan xalifa muy xalaat jamono Serigne Babacar si foo ne xalifa même boo toogoon États-Unis siin ni xalifa lettre ba joxal ma ko xalifa Serigne Babacar si lan koy jox ku dégg xalifa xalifa bi ca moom la njëkke xam nga lu ko indi mooy xalifaam du rek bi Cheikh Al Hadj àdduna xalifaam ba mu amee deux ans la ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëw taaw yóbbu ko ba ca juróom-benneelu asamaan ci kanamu yonent bi ni ko kii mooy Cheikh Al Khalifa waaw Cheikh kay lu mu wax day wéy yonent bi d'accord tamponeel ko loolu mooy mooy moom xilaafaam maanaam nekkul lu mu doon ci Cheikh Al waaw dafa wax ne Serigne Babacar Sy bi mu amee ñaari at Sidi Ahmed Tidiane yi daf ko fekk tiwaawoon loolu la bëgg a leeral Serigne Babacar Sy bi muy am ñaari at fekk na Sidi Hadji Malick ñëwagul tiwaawoon Serigne Babacar Sy mu ngi gane àdduna 1885 Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu mu ngi sañci wala mu ngi dem Tiwaawoon 1897 diggante bi douze ans jaar na fi fukki at ak ñaar kon loolu dañ ci xamee rekk ne nit la ko xam ne du kuy wax dëgg parce que bu fekkee ne yaa ngi wax nit ñi la nekk ca asamaan te li nga wax ci suuf amul ku mën a fenal waa suuf doo bàyyi waa asamaan kon sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu diiru Seydi Hadji di dund sax toogandoowul ak moom Tiwaawan dem na ba am fanweeri at ak juróom-ñett jàpp juróom-ñeent la door a installé Tiwaawan Seydi Hadji Malick génn na àdduna at bi ci topp sax gàmmu Tiwaawan dañ ko toxal yóbbu ko Ndar li may wax ni sëriñ Abdou Aziz Al Amin moo ma ko nettali beneen bi li mu wax ne bi ca juróom-benneelu asamaan ni ko kii mooy seetal Al Khalifa yonent bi nag lan la def maanaa ci ci xilaafa bi lu ca yonent bi def boobu deux ans la am de yonent bi jël loxo nday jooram tekk ci bopp sëriñ Babacar Si deux ans ni lépp luy xam-xam di jëme ci tarixa bi di jëme ci diine ji gis ni ki tey mokkal na ko ba mu ba mu mat sëkk ci moom waaw sëriñ ci Si deux la mokk lépp luy xam-xamu xaqiqa di xam-xamu sharia di xam-xamu tarika bi maanaam wérdi bi na ñuy àttee wérdi bi deux la ko mokkal ci kanamu yonent bi loolu la yonent bi def ci moom man lay sama de soo koy delloo si waat ci waawan kon waxuma mii gis nga relation boobu nga xam ne am na ko rek am na ko ci digganteem ak yonent bi am ko ci digganteem ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani su doon foofu la relation am yam dañuy wax doy na waaw mais déedéet bi Serigne Babacar Sy amee sept ans juróom-ñaari at boobu mu nga ci waaw lépp luy xam-xam ci monde xaybu lépp luy xam bi sallallahu alayhi wa sallam Sidi Ahmed Tidiane daf ko indil Serigne Babacar Sy mu jël loxoom ba teg ko ca bopp ba lépp luy xam-xamu sharia ak tarixa mu xam ko déedéet Serigne kër Sy radiyallahu taala anhu dafa jàng. ni ñëpp jànge bi dal jàng jotee dafa dal jàng Seydi Hadji malik moo ko dalal ñii ñu ne Seydi xaj Malick radiallahu taala anhu bi mu ko dalalee góor gi mur xujj si la ko jox ñu ne góor gi mur xujj si ci boppam moo ko dalal alquranul karim jël jël ko yóbbu ko kër yoro Sadio fa la nekk ba mokkal alquran njàng xam-xamam histoire la bu gudd waaye dañu bëgg a wane ne rek dafa jàng ba mokkal alquran jàng sharia ba peeg ko ñu tarbiye ko ci xaqiqa tarbiye bi it danaa ci defaat waxtaan spécial incha allah beneen bi ñu dégluwaat leneen ci lu mu wax ci sëriñ kër Si xam nga dégg dégg mu doon wax su ma juddoo woon sa gàncax ga du ma tee doon xalifa Maodo du ma tee doon xalifa see wax na dëgg xam nga lu tax xilaafa ba doon ko ci kër seexal Al Hadj Malick mu mëntoon juddoo Cheikh Al bi mu doon lay doon waaw mëntoon juddoo Cheikh Al bi mu doon lay doon lu tax mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ko présenté yonent bi te juróom-benneelu asamaan ni ko kii mooy seexal Al Khalifa te boobu deux ans la am dafa wax ne Serigne Babacar Sy dafa wax ne. su ma juddoo woon ca gàncax ba sax déedéet waxut loolu sëriñ Babacar Si waxut loolu gàncax mooy ñax mu sax su ma loolu yellul sax nga di ko wax di ko jëmee ci sëriñ Babacar Si su ma juddoo woon ca gàncax boobu sëriñ Babacar Si waxut loolu dafa wax ne su ma doon doomu kaañ sax du ma doon xalifa Cheikh Ahmad Tidiane yi kaañ benn agresseur la bu nekkoon diggante Thiès ak Dakar di dogale nit ñi di leen agressé loolu sax moo tax ñu tudd ñu diggante Thiès ak Dakar boo fa demee mooy diggante cees ak puut àll boobu ñu tuddee ko àllu kaañ kaañ moomu daan dogale nit ñi di leen attaqué la sëriñ kër si waxoon ne su ma doon doomu kaañ waaye pas doomu gàncax lii yëpp nag dañ ciy jàngee ne El Cheikh li muy wax jëmee ko ci asamaan di ko wax jëmee ko ca xaybu dara du ci dëgg lépp ay fen la ay sos la ci fii la jaaree nag def ko mbaal xale yu bari yu gëmoon Serigne kër si dem jéem a découvrir yi kiy wax lii ci Serigne kër si mooy kan mu jël leen orienté leen ci boppam ba xale yi léegi daanaka dañ ko jël teg ko fuñ tegul mag yooyu te li tax ñu di ci sonn ñun ñi bokk ci kër Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ndaw yi muy jël di leen gëm loolu amul la ci ëpp ñu leen di gis ràññee leen ci kër Sidi xaaj Malick lañ bokk ñu ci bëri buñ jógee di ko défendre photo Serigne Babacar Sy la ñuy def ci ginnaaw wala ñu jël photo Alaaji Abdou teg ko ci ginnaaw te lam doon waxal ñooñu yëpp dara amul ci danañ ko teggi benn par benn ba ñëpp xam ne li El Cheikh di wax ci Serigne kër Sy amul lii mooy premier épisode bi deuxième bi dana ñëw incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.